di nuyu kilifa yi nga xam ne ñoo fi teew jiital ci nuyoo bi sunu sëriñ Cheikh Abdou Bali Mbacké di suñu fierte aussi di nuyu Mohamed sise di nuyu délégation bi nga xam ne ñoo fi ñëw tey seet si ma di wax ne nag tey li tax ma woote point de presse bi mooy dafa am parti boo xam ne falaa nekkoon muy parti Pastef Touba ñëpp xam ne ci ñi taxawal Pastef ba Pastef taxaw fii man ci laa bokk loolu du lu may laam laame parce que ñi may waxal xam nañu loolu. massification yi nga xamante ne nii tey buñ demee ba tudd Pastef fii ci Touba di ko tudd ci département bu Mbacké maam daam loo kenn mënu ca génne loxoom waaye dama dem ba découvrir ne yëf yi ndekete ay nax la. ay bukki yu sangoo deru bay lañu parce que li ñu li ñuy woote ak lafa am bokkuñu ku dem ba ca biir nag di nga xam lu fa nekk parce que su ma Pastef dugg naa fa kaso événement mars yi passé ci mujj lu nekk dajal naa leen ko mais dañoo dem ba ci biir la ñu doon woote ak lii am dara bokku ci parce que seen liste bii nga xamante ne ni tey moom la ñu tànn def leen ay candidat nekk na liste boo xamante ne nii yéen waa Touba yéen a ko war a njëkk parce que xam nga lu tax mooy dañ leen a yàpp ak département bu Mbacké parce que ku mel ni l'ancien maire bu Mbacké waa Mbacké dañ ko football sànni ne kii soxlawuñu ko waa Pastef ñëw ne mbalit mi ñu askan wi soxlawut yéen moom laa leen di tànnal yéen tegal leen ko mu mel ni loo xamante ne dañ ñoo jàppe ñun ay analphabète wala ay bétail électoral wala ñoo xam ne dañoo yaakaar ne yëf yi yëfi kilifa la wala affaire sëriñ la wala ñun dañoo war a jóg chaque jour topp seen ginnaaw pour ñu jiital ñu dem fa loolu maam daam loolu du ci ànd tey du ci ànd suba. beneen bi ci des mooy beneen bi beneen beneen beneen bi ci topp mooy candidat yi am na ci ñoo xam ne dañoo jënd lii ñu leen ko dañ koo jënd mais yen waatu Touba est-ce que yéen yéenay nangul ñu leen di jëndal ay député yoo xam ne dañ leen koy tegal bu leen ko nangu. beneen bi ci des mooy ci ak njublang la ñuy dox parce que man su ma demee ba génn ci li ma découvrir seen biir mu ñi jiite Pastef Touba ay comploté ay wuruj ay dox si lu dul dëgg ay naxaate maam daa mënul nekk ci loolu xam ngeen lu tax ñoom ñu commencé teg seen i affaire di dal sama kaw parce que damaa dem ba découvrir seen njublang gi ma ne ñii jiite lii ak lii koy def parce que dama ànd ak samay nawle man di leen wor ñu woo ma ci kaay leen ànd comploté gaay ma woo ci maam kaay ñu ànd ñun suñu biir di àndandoo di dox may leen loolu du ma ko def man gor laa man ku ne xam na ne Serigne Cheikh Lo Ngabou mooy sama kilif mooy sama waajur kenn gënu ma doon kilifa fii sëñ Saliou da koo daggal penc mu def fa jumaa ku fet taxaw biir Pastef di jaay sa kilifteef oyof gu ma oyof moo tax ma man laa jël kii mais du ma ci moroomu kenn ci wàllu kilifa li may waxal xam nañ ko loolu léegi nag li may wax bëriwul li may wax bëriwul mooy bis ni tey yéen waa Touba laa bëgg ngeen yeewu Serigne Mountakha dafa wax lu am solo dafa ne Macky Sall daf maa lebal bor dama ko ameel bor bu ma ko war a fay waaw man mandaam en tant que murid sama waajur joxe ci kër Serigne Touba lu ne hôpital bii ñuy tabax fii ci euh, ci 28 sama waajur ko yëkkati jox ko sëriñ Abdoulaat kere ba mu ko ne poste dafa mënut a ñàkk ci dëkk bi waaye nee nañ ma sa kër gi mooy fi gën a placé wu mu ne ko def naa ko addiya fu ma gën a bokk ci dëkk bi waaw man tey naa ànd ay nit ñoo xamante ne nii njóob la nga naa fekk kay bu leen ci dugg idéologie patriotisme bi ñu wooye ay foo la amu fa liñ fi nekk mooy nañ buux ñii pour ñëw dund man nag loolu bi ma demee ba découvrir ko man loolu laa àndatul tey àndatuma ci suba beneen bi ci des mooy président Macky Sall nit dama leen dama ne bu leen nangu ko leen gën a gore def na fi hôpital assainissement bi def na fi lépp loo xam ne sëñ Mountakha soxla na ko bu duggee ci noppam bu dee 4 la dugg ci noppam balaa 4 heures demi mu saafara loolu nag loolu nag yéen waa Touba laay wax ne murit day gore kenn waru leen a jiitu ci ngor gi bu ngeen ko amee bor la boo xamante ne ñun murid yëpp ko ko ameel man maam daam dama ko ameel bor te dinaa ko fay te li ma leen di xamal nag mooy yoon bii il faut ngeen xam ne gaynde gu mag moo rentré ñëw jàppale Benno Bokk Yaakaar la daan am du am de la daan am sëñ bi maa la promettre loolu ne la la fi daan xew du fi xewaat cette fois-ci Benno Bokk Yaakaar dina gagné ak président Macky Sall maam daa man ci terrain bi ko matale beneen bi ci des beneen bi ci des mooy candidat candidat bala ngeen a fal nit da leen def ci moom enquête de moralité kii toog sama wet di Mouhamed Cissé ku nekk xam na ko ci social bam nekkagul dara danaan dimbale sama bañ ko dugalee dugal ko ci liste yi Cheikh Abdou Bali moo nekk vingt vingt et unième position di koo xamante ne nii fierté la ci ñun ñu xam ko ci liggéey boo xam ne yàgg na koo liggéey fii ci kër yoonu kër Serigne Touba muy lu jëm ci màggalu Touba ak yeneen ak yeneen ñooñu ñoo nekk ci liste bi ñeene ci liste beneen bi nag ay naa fekk fa nekk ay jëndkatu pour ñu dugal leen ci liste yi ma ne yéen xanaa yéen du ngeen nangu ñu leen di jëndal ay député léegi nag investiture bii ñu def fii ci Benno Bokk Yaakaar doomu dëkk bi lañ fi investir ay taalibe sëriñ tubaa lañ fi investir ay sëti Serigne Touba lañ fi investir te ku ne xam ne ne dëkk bi Serigne Touba moo ko taxawal kon bu ñu jëlee ci biiru njabootam dugal leen ci biir li ngeen war a def mooy jàppale njaboot gi ndax nag mënuñoo am benn yéene ñoom ñi nga xam dañ leen dugal ci biir lu dul yéene boo xamante ne nii lu rafet lay doon ci dëkk bi ak li Serigne Touba ñaanoon ci loolu nag li leen ko mën a ko mën a may mooy ngeen ñëw jàppale leen jàppale liste bii bi nga xamante ne nii mooy liste Benno Bokk Yaakaar pour élection yi ñu jëm ñu gañe ko ci kàttanug yàlla yàlla nag mooy joxe ndam waaye danañ def lépp lu ñu mën lépp loo xamante daanañ ko def biir Pastef danañu ko def ci biir benn bokk yaakaar lépp loo xamante ne daan daanañ ko liggéeyal Pastef danañu ko liggéeyal benn bokk yaakaar fépp foo xamante ne daanañ fa dem mooy quartier le plus reculé danañu fa yegg man dama ne yéen ñi dong bu ngeen toogoon ma takk sama ndigg man góorgóorlu gañeel ko dëkk bi parce que xam nañ nag lu ma capable xam nañ lu ma man dama leen di sant bu di ko di décision bi nga xam ne jël na ko ndax jàpp nañ ne c'est la bonne décision te expliqué na tax mu def ko gis naa ne président de la république mi ngi liggéey ci dëkk bi liggéey bu rëy lim na lekk hôpital bi loolu mooy li ci mujj lam fàtte mooy nab bi nga xam ne fii ñu toog nii tey ndox moo nekk suñu suuf boo gasee vingt centimètres jot ndox loolu président mi ngi koy résoudre wax na digganteem ak sëñ bu mag bi digganteem ak mboolem kilifa yi nekk dëkk bi yëpp wax na aussi yéen ji am ci dëkk bi wax ak dalam ak baaxam ak bëgg jàmmam ak woote jàmmam ak leadership bi nga xam ne ko incarné ci biir Sénégal ak dans toute l'Afrique kon maam daam yow ngay gaynde gu day na yow man ma xam la di doomi Serigne Cheikh Lo Ngabou di sa maam àndoon ak Serigne Touba bokk ñi nga xam ne ñoo sanc dëkk bii ngay nag dereti gor di daw ci sa yaram ngay sëtub jëri jor ne la man xam naa lu baax a baax kon foog naa ne xëju ci ginnaaw kenn ku du président Macky Sall moo tax lii nga def c'est la bonne décision dañu la ci dëkk bi nag mokkoon na mais léegi dañuy wax ne nooy na nepp ginnaaw boo dikkee te xam nañ ne li nga wax fii ni nga ko waxee lu ko raw nga koy defee et au soir en 31 am nañ yaakaar bu baax a baax ci ne danañ jox les cinq députés du département de Mbacké au président de la République pour que mu am une large majorité pour que mu mën a continuer du gouverner réew mi ci ak dal ci jàmm kon ne liggéey bu rëy bu rafet bi nga xamante ne mi ngi ko fay def kon dañ lay sant au nom de toute la coalition di la gërëm bu baax a baax. di la dalal jàmm di la tàllal loxo li ci profité nag di lancer en appel jàmbaar yi ne ci dëkk bi yëpp te yàlla xam na ne bari nañu ñu yàqoon seeni xel ñuy xel yaar yu bëree baree baree bëri ne leen waxtu wi jot na sëkk ñu ànd jàppale président de la république ngir delloo ko njukkal ci bor bi nga xam ne wax na léegi ne sëriñ bi nee na ko man maa la ko amel te kon loolu ñun ñoo ko war kon ñu ngi tàllal loxo ñëpp. ñëpp nañu ñëw kenn ku ne am na ci place bu ñu dikkee ñu ànd gañal ko mu continuer di taxawu sëñ bi di taxawu sëriñ bi ci dëkkam bi nga xam ne ñun amuñu dul moom parce que ñun kat ku xool sëñ bi rek ñu xool la parce que suñ jëmm yi jëmm yi xeebu la ñoo xam ne amul solo kon ñu ngi lay sant encore di la gërëm